di sant yàlla di wax alhamdulilah euh, match bi metti woon na trop euh, metti woon na euh, ndaxte liñ ko foogee woon ñu quoi demewul noonu bon ndax bi ñu commencé ñu dañoo dugal benn but <coughs> ñu dem bay am yaakaar gars yi égaliser ñu waxaat ñu tekke mais loolu lépp nag bi mu amee mu suñu yaakaar musul man xam naa sama équipe aussi xam naa sama objectif xam naa ni bu bal bi dawee rek dama leen di gagné bon yàlla def na nag match bi moom franchement metti woon na aussi neexoon na trop quoi à la fin ndaxte finalement gagné nan par tir au but ndaxte match yombul quoi ndaxte jàmm ji moo nekk équipe boo xamante ni nii donte ay xale si xale yu football day du yomb si moom quoi waaw mais nag yàlla mi maye ndam may na nañu ndam donc di remercier suñu staff bi yëpp di remercier aussi suñu joueurs yëpp di leen féliciter ndaxte franchement ñoom ñëpp tey dañu ñu bëggal tey man mun naa wax ni mbégte bi ma am. Euh, gën ñaa am mbégte mu mel noonu parce que franchement ndaxte boo gisee boo xamee jàmm ji da xam ne équipe boo xamante ne équipe bu bari ay noonu la loolu du ma ndaxte boo xoolee ci match bi benn instant gars yi ñu ngi doon bëgg a yàq suñ suñ suñ match ndaxte mënoo comprendre ci ci sport te moom moom match de football arbitre tiré tiré tiré au jeu ay supporters di ñàkk di wàccee drapeau xam na loolu lu nekkul loo xamante ne lu ñuy rafetlu la maanaam ñu lu ñuy ñaawlu la waaw lu ñuy ñaawlu la mais nag. yàlla mi am moom ndam moom franchement jox nañu ko quoi maanaam. gis naa est-ce que yaakaaroon nga ne dina yàgg guy gi doo doo. attention bi daal. wax dëgg yàlla sama équipe moom moom mosuma yaakaar man comme ni ma ko xam ni ma taamu man première mi-temps laay jeexale samay match man loolu laa ko foogee woon mais nag guy gi franchement moom démérité wul quoi indi nañu équipe bu baax quoi te man loolu laa gëm ci football. non instant bi match quart de finale la doon football. waaw instant lañu la ñuy xaar et puis match yi am suba ku dóor ñun lay am demi final mais di ñaan yàlla suñu cadet yi ñu dóor suñu poulain yi ndax ñu am leen bon match bu neex lay doon aussi waaw di ñaanal ñëpp aussi di remercier ñëpp aussi. waaw monsieur Mody yow jour ah, jàmb ji tey lan nga gis match bi tey bi ci amoon. waaw comme li ko suñu coach waxee rek nekkoon na match bu metti jàmb ji moom équipe bu muy dajal moom mënul yomb. mais yàlla suñu borom defal nañ ci ndam match bi comme ni ko coach waxee rek dem nañ jouer dugal un guy gi dem jëli ko fekk ñu faak deux ñu ànd maintenir organiser wu waat dem jëli ko dem séeri yàlla may ci ndam. yéen seen organisation bi coup la wala penalty. waaw ah bon coup la coup la ñu teg ko dóor ko mu dugg. ñu ngi lay gërëm waaw ok ok waaw